waaye di yëngatu it ci wàllu politique di yëngatu ci wàllu social mais li ñu fi jot indi tey benn affaire rek la mooy fas yéene waxtaan ak moom ci digganteem ak Abla Ama ndax moom mooy président euh, bu bureau membre international bu 100 pour cent amaa balde tey mu dëkk fii ci Grand yof di ko représenté fii internationalement bu xewlee amaa ñëw ah mu am nag loo xamante ne dafa bees ci làmb mooy diggante ñëpp doon ko xaar du sax lu bees waaye lu bees la parce que sénégalais yëpp ko doon xaar euh, diggante Ama bale ak Modou Lo donc jongante bi yàgg lool ku ci nekk di wut sa moroom waaye moom comme jege ñaale Ama Baldé la tey dinañ fa yéene waxtaan ak moom euh, ci lan la amaa nekk ci yan ruq la amaa nekk guddi gi ndax Modou Lo ku ne xam na euh, xarañ loo ku ne xam na ni daanaan la ku ne xam na ni champion la te ku am ak moom combat it waxuma la nelaw waaye doo booy nelaw tamit doo yandoo laay ñu ngi lay nuyu di la gannaaw bi ñu la nuyoo sant la gërëm la bàyyi la nga wax ak internet donc ñu waxtaan dugg ci waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu Sénégal àdduna wërngal këpp di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu waa Grand Yoff plus particulièrement le maire de la commune de Grand Yoff mook équipe municipale équipe municipale bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu Sénégal naan yàlla na fi jàmm sax di baalu ñëpp ak ci weeru koor gi di baal ñëpp di ñaanal ñu tëdd ci lalu hôpital yi yal na leen yàlla may wér bañ dellu seen njaboot yi ñu caabi féete ginnaaw yàlla may leen liberté parce que liberté mooy lépp daal di baaluwaat ak bu baax nit ñi ci weeru koor gi di baal ñëpp ak di ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi yàlla defal leen jàmm. bàyyi leen fi di ñaanal suma yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu fekkee suñu njëriñ suma papa yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ak bépp wayjur bu jiitu di ñaanool yàlla Ama Baldé yàlla na daan Modou ci jël bu gën a gaaw incha allah. Euh, euh, laay dégg ngeen ko noonu kàddu yi rafet na euh, laay tey waxtaanee wuñ ci politique donc xam nañ ne ku jege monsieur le maire nga maire mooy gox bi nga nekk di Grand Yoff mais tey dañu am ràññee benn affaire bi nga xamante ne ni yow ci ñi koy waale Ablaye Ama Ama Baldé yow da nga ci gën a fës ñu ràññee la même activité yi ngay def Ama day bàyyi yitteem ñëw donc lan moo la boole sa diggante ak Ama Baldé. fait de passage damay nuyu ñi nga xam ne ñooy membre bureau 100 pour bu Ama Baldé di jël loxo nuyoo bi di ko teg ci loxo Mortala mu jàllale ma ko ñëpp ñoom Paradaay sa gaay daal ku lim jum waa en fait des fois nit ñi dañuy xaw a réere mbir parce que sax des fois damay dégg ay wax. ñu naan dafa wal yaan yi dafa bàyyi goxam dem feneen affaire yooyu man dama bokk Pikine Pikine nit mënu ma fa dindi ama buy bëree bu ngemboo ba pare ba jàdd kër gi muy dugg sama kër maam la ñu fa wax famille Mboween de passage may nuyu suma grand Jili Mbow suma mag Oumy Mbow kon dama bokk Pikine boo demee marché Zeng tableau Thiam bu ñuy wax tableau Thiam su may maama tax passage may nuyu suma frère bi fa nekk muy Ndongo Thiam moom laa tuddee suma taaw di ñaanal seen yaay maire Woli Thiam suñu yaay yàlla yërëm ko xare ko àjjana kon loolu je pense que loolu rek doy na ni dama bokk Pikine ba pare ama ah, nekk nit ku neex a àndal parce que je pense que booy ànd nit xeebu la ci dara xeeboo ko ci dara lu ngeen xewle ngeen toog waxtaan ci ci lu muy dugg nga yëg ko ci looy dugg xam nga du du jug ci di wax ci waxtaan ci yu bëri di ma conseiller man tamit xam nga mu nekk nit ku nekk neex a nekkal nit ku ma ko indil mu téye ko comme comme man. kon kooku ci lu mu nekk dama ciy nekk comme li gars yi di wax li gars yi naan foo pikiroo man naan fay doom non man moom fu mu pikiroo man dama fay tétanos te fu mu dee dama fay dee waaw kon man moom li ñu liyee du ay affaire làmb affaire yi man dama bokk Pikine avant dara pare après mu ñëw nag man mu nekk suma mbër nekk koo xam ni comme li gars yi di wax neex a faral dimanche dafa dafa neex a faral parce que li ñu tàrreel salaamaaleykum maaleykum salaam daf ñu yeewi ñu dem. la ilaha illallah lamba ngoog ama ngoog daw na ca waa alaaji alaaji lu ngeen indi tey dina naas dina naas yàlla yàlla yàlla baax na alaaji dafa dégg galañ mbay ba si yaakaar yàlla kese yàlla tey ban galañ ngeen fekk waaw bu bees tax bu bees tax léegi léegi rek incha allah mu ama ama yaa ama balde doo ragal tey ama yaa ñu ama ama yaa ñu doomu Fallaye doo ragal boobu la gars yi indi tey ay ta ñu dem ànd ak waa Pikine la ilaha illallah Ama ngoog le fils de Fallaye a ngoog doomu Pikine a ngoog la ilaha illallah Ama ngoog kuy sa baay Fallaye foo juddoo Pikine kooku mooy Ama kooku mooy rakku Jules Baldé xale baa ñu ni sël wi yëkk la Ama daf may gën a bëgg sax kooku su ma ko nee Ama ah, diw sama nit la non da koy téye ba damay damay xam ni kii am na fu ma teg kon loolu rek man ndam la su ma xewlee mu ñëw lu ma nekk mu nekk ci heure bu ma ko woo yëkkati ko dëkk day jug kon kooku li ma booleeg moom du ay détail du ay lii waaw. mais lamb xam nga ni lamb euh, dafa xaw a complexe lool complexe bi mu complexe mooy lamb dafa xaw a doy waar lim lamboo moo bëri tëju yeeg comprendre donc wuti lii dugg fi làqatu fii dugg fii parce que làmb secret la donc loolu yëpp nga boole ko di ànd ak ama mu nekk xale nga nekk xale parfois donc yan métit nga ci gis wala soit lan nga ciy gis tey boo ko doon conseillé léeg-léeg ngeen ànd loo koy wax ci xale. waaw non li li ma koy wax lenn la rek parce que ama tey ku ko xam xamee ko benn jikko mooy que ñi mu nekkal démb ak bëri ki démb ñooñu la nekkal ama musul soppeeku musul changé musul bew musul naagu heure boo ko fekkee ko ñoom yow si sa boobu da nga yéemu mu ngi ci gars yi di kaf fooree la xam ñëpp benn jikko bi lañ ko xamee kon xam nga boobu man awma ci ay dut wala dara en tout cas lenn lañ koy gën a ñaax te mu ngi ci mooy que fi mu teg tànkam mu bañ ko teggi cër bi mu am ci ni ñi mu bañ a sopp man daal man daal bu mu soppee ko bu mu bew dund taalibe bi muy dund ni man dama ci kontaan ci moom te dama ci sama sag la daal en tout cas dama koy ñaanal jàmm tawféex ak taysiir ba le jour si waaw xam ni pël bi dafa doy waar de te dafa décidé. d' accord le jour si dinañ fi ñëw ci ci kanam tuuti Modou Lo moom kenn du ko am di nelaw loolu moom ak ku mënta doon mais tey dañuy waxtaan euh, euh, tey suma ma laajoon euh, Ama tey yow nga dëkk Grand yof di yeewoo Grand Yoff dem ba ñu tabb foofu ci président membre bureau bu 100 pour cent Ama international donc léeg-léeg du la jàpp ci diggante di di yeewoo Pikine di di dem Pikine waaw xam nga sànq ci ay wax wax naa la benn affaire nee naa la man dama bokk Pikine en tout cas man comme li ma wax ma fi sens interdit mbër bu fi xewle artiste bu fi xewle ko ci wàllum loo yëngu dama ciy ñëw jàpp dama ciy ñëw taxaw lu ma ci war dama koy def parce que milieu bi ñu nekkee la mais boole ay nit yàlla moo koy def am na ñoo xamante ni fii lañ nekk grave mais dañuy teewal Modou Lo am na ñoo xam ne Grand Yoff la nekk dañuy teewal Balla Gaye am na ñoo xam dañuy teewal Sa am na ñoo xam ne ñu ngi biir Grand Yoff sax amaana na être xaw ma leen wala miinu ma leen ñoo ma gën a dof foofu ci Amadou Baldé ni ñu mel ci Ama non xaaj sax melu ma ko te peut-être xaw ma leen mais peut-être fës wala dara peut-être yàlla moo koy def amaana laay mairie laay bu am peut-être sama tur a jiitu mais am na ñoo xam ni wallaahi ni ñu mel ci moom sax man xaaju xaajaat bi mel ma ko mais tamit en tout cas fiiraange wala lii yooyu moom je me dis amul sens boole yàlla moo koy def yàlla moo koy yàlla mooy li may wax chaque jour yàlla man ama la ma booleel ci télé laa toog te wax te ñëpp may seet seetaan te ñëpp may déglu ku may bëgg ma bëgg ak Ama Baldé ku may jàpp ngir yàlla nag ma jàpp ak Ama Baldé ñëpp nag la sekkal jàmm fii mbaru grand fi yëpp samay xarit lañ mobile 2 sama waay la sama sama doomu ndey la otoom daf ma koy jox ma koy yor di ko dawal xam nga loolu ko dul sa xarit du ko defal naan faal suma mbokk la ñoo bokk waalo ñooñu dañuy gisante dañuy waxtaan ba ci démb rek dañuy gisante nañ waxtaan nañ mais boole yàllaa kay def yàlla moo ma boole ak Ama Baldé muy suma xarit di suma frère sama doomu ndey ku may bëgg mooy li rek nag ma bëgg ak Amadou Balde man loolu nëbbu ma ko ñoom sax xam nañ ko ci man loo wax ñun la laay bu Ama kon fiiraange mun ci am oui. mais est-ce que Ama mos na la ñëwal nga xewle nga mu ñëwal mu ñëwal la jóge Pikine ñëw Grand Yoff ah waxuma la xewle sax sama téléphone léegi su ma ko taaloon nga gis ay vidéo yoo xam da nga naan c'est pas possible damay toog ci ay place nit woo ko ni ko maa ngi bërëb sàngam ci weeru koor la ñu nekk ku dee ak sa bàmmeel mu dagg itam ñëw foofu nit lu mu métti métti waxal dëgg kulul xaq walaw kaana murran waxal dëgg donte da lay rey am na sama benn événement boo xam ne suñu kër la woon suma anniversaire la je pense que sa caméraman bi sax mu ngi fa woon moo ko filmé mu ngi fa woon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñuy ànd ci lu bëri dina ci lu bëri kon donc loolu moom ay ay kii la quoi ndax damay xewle ma ñëw wala lii non déglu ma la ama sama jumeau la. waaw mais xam nga mbër dafay ñàkk jot léeg-léeg du ne question question de kii la mais léeg seen jot moo leen ko dul permettre nga xam ne dinañu mën a teg seen tànk mais yow fi nga toll ci Ama bu la Ama lim la jaral moo tax ñu laaj la est-ce que di ngay xewle Ama ñëw. déggoo li ne man lu ma tax mu tax ci rib fu ma diwoo fu ma diwoo diwlin mu diwoo fa diwtiir kooku sama jumeau la sama jumeau lu mu nekk dama ciy nekk duma ci xaar ma Samba wala ma Demba xaaruma ci ay fal nañ ma lii wala lii noonoo dégg ah ñu wax ci combat bi léegi dégg nga loolu sama jumeau la fu ama pikiru moom mu naan fa doom donc mais tey ñu dugg ci combat bi dëggantaan tey ah yow jege ngaale ama ama ama Baldé nga ngay xaritam lan la ci lan la amaa nekk actuellement nii parce que kenn musu ko gis kenn mënu ko dégg fenn téléphone kenn mënu ko jot. ah mu ngi fi ah mu ngi fi mu ngi ci ay entraînement mu ngi ci ay liggéeyam xam nga moom en fait mos na fanee passé wax na ko ci benn interview ku ne xam na ni moo topp di laaj Modou Lo bañ jox ko Modou Lo kon affaire yi nekkatul ay wax xam nga lan la liggéey ñëw appliqué te wax naa la ko sànq billahi jours ji dañ xam ni pol bi dafa yéeme de lu garaaw nag laa leex xam nga maa ngi dégg ay wax fu ne ñu toog naan ama lii déglu naa papi général ancien lutteur toog nii moom mbër la xaw ma lan luy daan xaw ma lan ama Modou ama warul woon jël Modou Lo Papis général bu xamoon luy daan mbër du dooni sëriñ day nekk roi des arènes ñun wax yi ñuy wax noonu jaaxaluñu ñun xamala la ñu am suñu gëm-gëm ci suñu nit mooy que le jour si jot yàlla bàyyi ñu ci jàmm ak salaam ama daan moodu mais kanta ay ama warul woon jël moodu wala kii non du ñoom ñoo ci xam dara moom mi dem ba jël ko xam ne lu tax mu jël ko mais yow da jàpp ne Ama fu mu toll dafa pare mystiquement wala pare doole yegg si pour pour pour bërëg Ama Bal pour bërëg euh, Modou Lo. Euh, ah, lan nga jàpp ne moom mooy tax dëggantaan Ama Bal jël Modou ci làmb la wala mystique la wala làmb moo leen boole. mais Ama ku bañ a bëree moom rek da ko tax làmb ci c'est que bu ñu fàtte ni Modou dafa daan ay mbër. yu ama daan ama daan ay mbër yu muudu daan waaw mais nag ci histoire aussi tamit ci mbapat Modou Lo mos na kaa daan ma rek ba pare moodu daan ay mbëri comme li yoo xam ne ama da daan ama daan ay mbër yu moodu bëreelul xaw ma dégg nga ma wala déggoo moodu dafa daan ay mbër yoo xam ne man daf leen daan ma daan leen man ma daan ay mbër yoo xam ne moodu bëreewul ak ñoom mais est-ce boo koy tey calculer foofu nga koy teg diw daan na diw diw daan parce que boo xoolee diggante Balla Gaye soo xoolee diggante Balla Gaye ak Eumeu Sène Eumeu Sène dafay daan Balla Gaye may ko revanche daanaat ko waaye saa yi su ñëwee ci Modou Lo da koy daan jël la c'est-à-dire est-ce que làmb loolu la calcul kii daan na diw daan naa ko daan na wala kii ak yooyu xam naa ni tafaatin ngay wax <laughs> boo gisee ma tontu la loolu parce que gars yi dañu naan ndax ama yegg na foofu ma ni la ama ku bañ a bëreeg moom danga ko ragal ma lay je pèse bien mes mots amul mbër buy taxaw fii naan ndax ama ah, war naa bëri moom wala lii non day fekk da nga ko ragal loolu man maa la ko wax fii. mais instant bi lan nga jàpp ci moo nekk ci Ama Baldé lu mën a daan Modou te nekkul ci Modou bu dee bëre Modou am na ko Ama am na ko bu dee fit bu dee taay aussi doomi mbër la xëy na peut-être avantage bi mooy kii doomi mbër la loo gis ci combat boobu. non gis nga ay doomi mbër laa doomi lii laa doomi lii laa kan mooy papa Yékini ci làmb ji. mais ay maamam daan dañ bëri quand laa la laaj. da nga ko xam da dégg ñu ne papa Yékini roi des arènes la woon Modou Lo tey mooy roi des arènes est-ce que mës ngeen dégg ñu ne papaam roi des arènes la woon c'est que yooyu man gëwuma loolu. xam nga laa gëm ful la jom fayda ak sañ-sañ te yëpp mu ngi ci su sama waa ji mu ngi si Ama ah, am na fulla am na jom am na sañ-sañ te am na fit macha allah Modou ndaanaan la ndaanaan ku lu fàttalil la comme moo moo tax ñu koy wooyee xaw ma xarañ loo xaw ma lan waaw parce que dafa xarañ mais dama ni la xale bi dafa saf saab moom mooy déranger te ñoom xam nañ ni booy bi mooy déranger. ok te temps yi gis nañu aussi ay vidéo yu ndaw yi amaat yi def naan noo jël jeex na affaire yi jeex na ba pare noo ndam li ñëw na ba pare jours yi la ñuy xaar ñu indi trophée bi yóbbu loolu moo ci des lan ngay wax ci loolu. waaw parce que mooy li ma lu mu gëm la xam nga kenn du dem xare naan dañ may rey booy dem xare naan dañ may rey mais boobu nga jël paaka rendi sa bopp rek bàyyi seen waa kër suul la te nga a dem te xam ne yow booy dem di ñu gàcceel parce que ñun waxuma la loo de ku dul muudloo laa wax ci làmb bu taxee suñu kanam dañ lay faxas ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm ku dul Modou Lo bu taxee suñu kanam dañ lay faxas. lan nga lan lan nga ñu mun a wax tey ci état de forme bi nga xamante ne ni amaa Baldé mu ngi ko am actuellement nii parce que mu ngi lalu ci entraînement ci weeru la ñu nekk est-ce que mu ngi entraîné bi nga koy mujjee gis noo ko gisee ci état de forme waa non macha allah mu ngi ci mu ngi ci li mu war a nekk mu ngi entraîné ni mu ko waree mu ngi def li mu xam nga benn affaire dafa am. gis nga man su ma toppee ay at naan jox leen ma diw jox leen ma diw jox leen ma diw ba ñu jox la diw nga ni doo ni non loolu yëfu yabaate la kon bu entraîné wul dama naan daf ñu yab am déet kon mu ngi entraîné mu ngi entraîné lool ñu waxu ñu bañ ko xam nañ ni xam nañ ci li mu nekk ñun lenn rek la ñuy xaar mooy le jour si comme niñ koy waxee xiir bi moom non mafia bi ku ci bokkul. mafia raba raba bi daal sa kaw de. te problème boobu nga xam ne aussi tamit am na ci premier face à face bi seen TV supporters yi ñëw fa ama jàppante xeexante mujjul am ba buumi di sànnante ay lacrymogène lool lan nga ci wax. gars yi jàpp nee nañ nag ñu bëri jàpp nañ nee nañ booy Pikine la ñoo ruubee ñoo njëkk a sànni ñoo njëkk a def ni yéen da ngeen doy waar de yéen. <laughs> waaw mais xam nga weex dung weex dung moo doy waar ndeysaan nit ki moom boo weexee dung rek lu xew lañ naan yow la mais je me dis que ama ñun ñoo ko ah mu yegg si foofu presque vingt heures et demi wala vingt heures trent cinq ñu ngi déparé Pikine jël technopole jël autoroute bi def tout droit ba pont foire bi ci lañ dagg jël deux voies dem Sen TV ñun ba ñu yegg si biir Sen TV vingt heures trente cinq te nee nañ amul sécurité je pense que gis nañ fa lu mat onze wala douze ay oto gendarme yu mag kon duñu ni amul sécurité waxaguma la police gendarmerie laa la wax après police soo a ñëw ñun ba ñuy ñëw ba ñëwee ba yegsi ci biir toog nañ lu yàgg moo du doog a ñëw te ba mu ñëwee wàccul otoom pour te diir foofu bu amoon xeex ñun fi ñu taxawoon ñun ak ay yenn ci ay waa kër Modou Lo fa la ñu fekk di ñu di ñu kon xeex bu fa amoon loolu du fa am c'est que foo ñuy bàyyi benn xel des fois suñu takk der yi ñooy njëkk jiital fitna parce que dañu ñu bërët gis nañ mbooloo ñoom ñu sànni lacrymogène boo yi commencé sànnante xeer duma ma ni waa kër Ama ñoo njëkk sànni man du ma ni waa kër Modou loo ñoo njëkk a sànni ñoom takk der ñoo njëkk a sànni lacrymogène fi ful bi parce que gis nañ mbooloo rek ñu sànni lacrymogène jàpp ni coow moo fa am affaire ñun ak ay yenn waa kër Modou Lo ñoo taxawoon laa la ñu ñuy interroger sànnante xeer yi jóg ku nekk nag juyeloo ñu ne añ waa kër Modou Lo moo ko yàq ñu ne waa kër Ama mais Modou ba tey wàccul otom ba mu ñëwee Papis moo doon dawal oto bi V8 bu weex Modou wàccul ñun fi ñu taxaw fala la Papis taxaw gaare kon bu xeex doon am Papis du fa gaare dañuy waxante dëgg te yàlla tax nit ñi bu ñuy wax dañuy wax li nga xam ne moo am ñun ki ñu war a ñëw gaare suñu côté xeex bu amoon dina fa gaare hmm? du fa taxaw. Modou li mu sol toog ci biir oto bi toog ci kanam di wax ak Papis lépp suñu kanam la kon nañu bàyyi di wax yenn yi ñu fekkeewul mais lamb ji demagul fenn ci premier signature mu commencé di am xeex lamb ji est-ce que dana yomb jàpp nga ni dina yomb en tant que responsable ba pare jiite ay fans club. parce que dama ni la lu toll ni Modou Lo Ama boo koy organiser waroo ko organiser ci koñ. TV fi mu nekk nii koñ la benn côté bi boo duggee impasse la tey bu fa musiba amoon jëye rente mun na fa am Luc Nicolaï du promoteur bu ndaw bu loolu genre yooyu boo koy organiser bu jaree nga def ko ci stade sax def enterré gars yi dañuy ñëw parce que am na ñoo xam ne Modou jaral na leen lu ëpp loolu ñenn ñi Ama jaral na leen lu ëpp loolu. kon yow yow yow da nga jàpp ne erreur bi ci Luc Nicolaï la. bien sûr foofu dafa ndaw ba pare nga ni ku nekk na nga ñëw indaale ñetti personne ak nit ñi la nammee woon événement wu làmb. tey ama buy génn mbooloo da koy topp Modou buy génn mbooloo da koy topp te kenn du ci nangu ni ñi lay topp doo leen mën ni dellu leen munul nekk loolu. waaw ah, mais côté boobu du nekk ci fóot en général du nekk ci foot mbër yi moom supporter dañoo dëgër bopp même bu ñu leen toog leen sax jaral leen jël ay oto jaral leen jël ay taxi ñëw. dégg nga ma la ñaari nitu mbooloo lañ macha allah da xool fu mu laaj nga organiser ko foofu ñëw taxaw jàkkaarloo. mais damay waxaat beneen affaire mooy que supporters yi fans club yi dañuy bàyyi xel ni li ñuy def ci réew mi lay am sport bi c'est un sport national Modou Lo Ama ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu liy weesoo dañuy demalante di dikkalante man am na ñu ma xam ñoo xam ñoo diriger ay fans club Modou Lo te samay waay lañ bu liy weesoo dañuy demalante mais nañ bàyyi ay sànnante xeer ay wekki ay siège stade ay xeex fii gis nga boo demee stade làmb am ñi ñuy wax amateur mag ñi du ñu sànni xeer du ñu xeex ñoom ñooy toog seen biir ñooy kaf ñooy foom ñooy rey mais pourquoi pas ñun jeunesse bi ñun ñi nga xam ne ñooy neexal ñoo yor ambiance bi ñu wane exemple boobu nañuy demee xel te bañ di demee fugg jeunesse chaque jour loolu rek laa leen di wax merci mbokk yi xaritu internet yi ñu ngi am mbégte bu baax euh, ki doon dalal mooy Laye Cissé di jege ñaale Ama Baldé nit ñi lool ci Ama euh, ci ay organisation ci ay activité ci ay yi nga xamante ne ni surtout bu Ama di bëre wala su Ama amee événement di génn ñu min ko lool ci digganteem ak Ama tey ñu fi sekkoon ak moom waxtaan fas yéene doon waxtaan ak moom ci préparation combat bi nga xamante ne Ama mu ko am contre Modou Lo la koy waajalee la la ci la lay dugg lu tax mu jël ko te yaakaar naa na ci leeral na ci leeral sax ci euh, premier face xamante ne yàqu na keroog fépp ci Sen TV euh, mu amoon ay diggante xeex buumi sàndante ay lacrymogène ak yeneen ak yeneen mais moom ci ay waxam jàpp ni donc combat ku toll ni Ama Baldé ak Modou Lo xam ne mbooloo mu nekk seen ginnaaw boo koy organiser da nga koy jar def ci donc loolu message la aussi pour Luc Nicolaï ak ak Enco ak staff bi yëpp ñi nga xamante ne pour prochaine yeneen donc ñu ko espace boo xam ne dina libre dina yaatu ndax làmb ji suñu làmb la te yaakaar